kii ñaari xale yaa ngi noonu ci digg géew bi caatu yoof ndeysaan ak ki nga xamante ni moom i bulldozer arbitre bi ñaar laaj na leen ndax pare ngeen mbokk yi tey bésu le 8 janvier tey ñu ànd ci ki nga xamante ni moom mooy Fallou Ndiaye le promoteur numéro un waaye Mamadou Mbaye borom Bantamba Mamadou Mbaye borom ay du Tigre tey 8 janvier saa bu ñëwee sama xel day dem ci yow ndax yaa ko moom maa ngi lay souhaité joyeux anniversaire Mbaye Diéry maa Malobé Samba li mi ci seen ngi ma faale ko ma naa ma tax ma balaa dégg fukki bala ñaar ñaari xale yi ñu ngi lewtiwu mbokk yi ndeysaan bulldozer malika lu jóge bulldozer malika montagne allu ba ñaax waaye bulldozer xale bi ngay bëreel caatu yoof ndeysaan fukki biñ jeg ñaar ñu ngi ci ginnaawam ndeysaan ñu ngi lewtoo ñoom ñaar mbokk yi bisu le 15 janvier bu leen ko fàtte le 15 janvier Zarko Ada Fass mbokk yi que le meilleur ba que le meilleur gagne bu neex kon combat bu neex combat bu doy waar combat bu bëri coow waaye nañ ko bëri ci fair play nañ ko bëri ci yar te xam ni lamb ju jaar na fi ana Boy Niang ak Balla Gaye numéro 2 le premier janvier ñu ko fàtte jaar na fi dem na laa ilaaha illallaah bulldozer bulldozer laa ilaaha illallaah bulldozer dara amul dara xewagul oh oh bulldozer laa ilaaha illallaah Caatu Yoff daan na bulldozer jël bu rëy Caatu Yoff doon na Bulldozer mu daanu ndeysaan bu ñu indil beneen lamb yow ndànk ndànk ndànk ça va eh waa lii mbaa jàmm la eh Caatu Caatu Caatu eh Caatu rey war na seen booy du wax ñoom ah. booy dama wax ñoom. dama damay foo wax ñoom billaahi wallaahi tallaahi. booy maa leen man. booy maa leen man. man. booy bu bu bu ma baaxee ma leen doon ma leen di rey barke Sëñ Bamba. booy maa leen man ma la ëpp doole billaahi wallaahi tallaahi. léegi jóge nga ci biir fan bu baax. du ma bëre.